waxtaanee li nga xamante ni moom moo di euh, bërëb yu sell yi mbaa mag yu mm. baax yi nga xamante ni ñoo bàyyeekoo euh, ba Touba ba tey euh, ñu mën a am ci ñoom sëriñ Touba. Mm. kon nag dañ ciy ànd ak Alassane Gning bu ko defee moom mu daal di dikkateeg ñun rek feneen ci yokkuñu rek ca wàllum Touba. comme ni ñu leen koy defalee saa su nekk di leen indil benn point maanaam si wàllu taarix si yoonu murit di leen ko leeral di si waxtaan ak yéen si anam bu gàtt. tey mu mel ni dañ leen indil maanaam deuxième exil lu Serigne Touba Mbacke Khadim Rasulullah lu waral deuxième exil boobu xam nga ni Serigne Touba biñ ko yóbboo Gabon le 21 septembre 1895 bi mu jógee fii nga xam ni moom mooy Sénégal euh, dem Gabon si exilam boobu. te yàgg fa def fa sept ans sept mois maanaam huit ans bu manqué ay weer sëñ bi mi ngi fi ñëw le 11 novembre 1902 fii nga xam ni moom mooy port bu Dakar jóge Dakar dem Ndar jóge Ndar ñëw Louga bu mu ñëwee Louga mu wàcc kër sëñ Seex Coro bi nga xam ni moom mooy rakkam jóge Louga ñëw sànnoo si ci kër euh, kër Serigne Sirilo foofu la weere wooree weeru koor gi yëpp ba mu jeex sëriñ bu mu jógee eh, sànnu si mu ñëw kër góor mag jaw taalibeem bu ñuy wax góor mag jaw jaar na foofu sëriñ bi bu mu jógee kër góor mag jaw jaar na kër màkk sàmb baabu bu mu jógee kër màkk sàmb baabu jaar na Mbacke Kajoor bi nga xam ne Serigne Ibrahima Mbacke baayam bu ndaw moom Maam Mor Sali ñoo bokk benn baay jaar na fa. bu mu jógee foofu ñëw na Kër Masamba Xari Diop jógee Kër Masamba Xari Diop ñëw Kër Maxtaar Mariam si la ñaaxal jógee Kër Masamba Mariam si la ñaaxal ñëw Kër Masamba Diop kooki. bu mu jógee Kër Masamba Diop kooki Serigne bi si la ñëw fii nga xam ni moom mooy Daaru Salaam si rakkam bi nga xam ne moom mooy maam Cheikh Anta Mbacke. ku dégg na ganam gu rëy googu nga xam ne sëriñ bi def na ko fa sëriñ mu jógee Daaru Salaam si la ñëw fii nga xam ni moom mooy Daaru Marnaan Daaru Marnaan nag fa la lépp a xewe Daaru Marnaan bii ma leen di wax sëriñ tubaab bi mu nekkee si géej gi en 1900 te mu dégg benn mbokk wolofam buy wax wolof mu génnoon mu tudd Abdoulaye Ndour Abdoulaye Ndour moom la sëñ bi jokkanteel bu muy ñëw senegal la ko Serigne Touba Mbacke jox leetar ni ko boo demee ni nga wax maam Thierno Ibrahima Fati mu dem sañ ci fële Daaru Marnaan Daaru Mar Daaru Marnaan googu bi Serigne Touba jógee si géej gi foofu la ñëw sañ ci def fa ab diir Serigne Touba bi mu jógee géej dafa indaale ay gaal yu bëri maanaam ay yu mu bindoon si ay xasidaak yooyu yoog bagaasam yi. yàlla def kër gi Serigne Touba nekkoon daaru ma naan kër gi lakk bi kër gi di lakk Serigne Touba wax ni nañu nañu bàyyi mu lakk kër gi lakk ba jeex yàlla def sëriñ tubaa jóge daaru ma naan dem ndaam moom demee ndaam ñu koy defaral kër gi bu ñuy defar kër gi nag lii nga xam ni moom mooy bagage yooyu mooy bagage kër ki nga xam ni moom mooy maam Cheikh ak maam Cheikh Ibrahima Fall am na ñeneen ñu ne Serigne Mbacke Bousso ñoo doon indi ay bagage sëf ko si ay gileem sëf ko si ay gileem def ko si ay saaku sëf ko si ay gileem pour ñëw mën a defaraat këru Serigne Touba Mbacke Xaadim Rasulullaay boobu nekkoon Daaru Marnaan am benn waay bu ko gis dem si mbaaxaan boobu mbaaxaan comme ni leen ko waxee moom moo doon chef de canton bi ni ko Serigne Touba mi ngeen jàppoon mi kat tubaab yi jàppoon yóbbu ko Gabon de mi ngi waajal ab fayu gis nañ mu jël ay gileem sëf si ay gànnaay maanaam di ko wàccee guddi si këram lii moo indi diggante mbaaxaan ak Serigne baax ba diggante bi ñagasoon lool lool lool lool ba mbaaxaan jottali ñi nga xam ne ñoom ñooy tubaab bi gouverneur bi fi nekkoon ba yàlla def tubaab yooyu ñëw bés bett Serigne bi dugg biir këram xotti sàkket yi di xool maanaam est-ce que arme yooyu ñuy wax dëgg la am ñëw jël même boo demee ba léegi nii bagage yooyu nga xam ne Serigne Touba moo ko moom te muy gaal yooyu boo demee da ngay gis euh, xeej yi nga xam ne tubaab bi ñu ngi ko jamoon si biir xeej yi bënn nañ ko doon ko xool xool gaal lu si nekk boo demee ba da ngay gis ni bënn bënn yooyu ñu ngi si ba léegi te it tubaab bi ñoom ñoom li leen dérangé woon mooy xam ne ni Serigne Touba Mbaye Xaadimu Rasuul bi mu ñëwaatee Sénégal maanaam tey bu fekkoon ni niñ ko mënoon tuddee maanaam star nañ ko doon waxee ndax sëriñ bi maanaam bi mu ñëwee bi mu ñëwaatee adduna yëpp dañoo fàq jëm si si moom ñëpp fàq jëm si sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa doole ju mu amoon amaat doole ji xanaa ni dañ koy multiplier par sept wala lu ko jooju la sëriñ Tuubaa yoroon sëriñ bi nag bu mu leen bindee lettre boobu mel na lu leen humilier léegi nag tubaab bi ne nag kii foog ñu jénnee ko fi parce que déjà lii nii mu ñu def nii ak dooleem jii mu ñu am lii kii buñ ko bàyyee day ëpp loxo mais boobu tubaab bi xaw nañu ragal sëriñ bi ndax li ñu njëkkoon def nooñu mënaa mënaatuñ ko def ndax sëriñ bi comme ni ma leen ko waxee léegi doole bu mu amoon rek amaan na bu ko ëpp moo tax dañu xawoon ragal sëriñ bi tuuti ndax jàpp ni kat sëriñ bi kat bu buñ ko jàppee bëgg ko yóbbuwaat lu mel ni Gabon wala yeneen réew sëriñ bi dina si bu riposté rek dina métti si ñoom moo tax ñu doon négocier ba yàlla def ñu bind lettre Cheikh Sidi El Baba bi nga xam ne moo nekk Mauritanie bi ñu ko bindee lettre Cheikh Sidé Babou woolu Serigne Touba Mbacke Khadim Rasoulaay bu mu ko wooloo Serigne tubaa jëloon na fasam bay ñëw waaye Serigne bi kat dafa dem ba si yoon bi kat jagadi jagadi diggal ko boobu Serigne mi ngi doog a jóge si géej gi sonn jagadi diggal ko ba tax Serigne Touba bindaat lettre Cheikh Sidé Babou ni ko bëggoon na maa ñëw loolu man lettre boobu man teg naa sama bët Serigne Touba ni ko bëggoon na maa ñëw loolu waaye. dama sama sama yaram ji moo des coono moo tax bàyyil ma bàyyil ma ba jëmmi jamono incha allahu rabbi kon lii mooy ñaareelu exilu Serigne Touba Mbacke lii mooy sababu exilu Serigne Touba Mbacke ba yàlla def Serigne bi dem gànnaar kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu cant ngërëm ñel na ko moom Alassane Gning yaay booy ah, kon nag bërëb bu sell sell bi nga xamante ni moom moo di Touba képp ku fa demati mm. di nga xam la fa mag yi dajoon ah, ba taxawal ba sanc lii di Touba ba ñu fay mën a am yaakaar di fa dem di ñaan yàlla ah, kon nag ah jërëjëfe Xaadimu Rasul rek li ñuy wax ci màggal loolu lii lii waa Sen TV def lu am solo la page bu bu ñuy ubbi dafay tax bari na ñu nekk sax ci yoon bi am lu ñu réere ah. parce que béréb bu ne am na lu ñuy sédifié ci góoru yàlla yi lañ fa jaar ak lañ fa daj wala la leen fa fekk wala la leen fa feeju mm-hmm. loolu nag dafa am solo ñu koy génnee ndax mbir boo ca nekkee da nga ko war a xam Serigne nee na mm. am ko te xamoo ko mm. ñàkk ko te xam ko mm. moo ko gën dëgg ay Aïcha mi ngi noonu merci beaucoup mi ngi noonu dafay baax benn documentaire bu ndaw lay constituer mm-hmm. à la fin parce que mm-hmm. fii ba màggal gi bu ñu leen koy dégtalee képp ko mm-hmm. bëgg gisaat euh, lii moo tax suba Subatel ne kepparu weccantim xalaat ak i xam-xam ndax lu la réeroon sax euh, boo góorgóorloo for ko fii kon nag la chaîne leader seen yëf la